ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di jiital ci nuyoo yi ak ziar yi sëriñ Mouhamadunil Muntaqa alxalifatul am li taifatil muridiya ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal lim ñaanal sëriñ Tuubaa mu defe ko nu kawe jottam te ñu ànd ko moom noonu la nuyoo di ziar mbooleem kilifa diine yi ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuy di ziar mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi ak mbooleem cheikh yi sëriñ Tuubaa yi ak mboolem mourid yi ak mboolem julit ñi ñi am bekté di dikay yéen ci émission bi nga xamné baxo ngeen ko ànd ak ñun alar bu nekk ci waxtu wi muy majalis mu jëm ci di jàngale téré yi serigne touba radiyallahu anhu def ci fan xam xam-xam yi muy at tawhid wal fiqh wa tasawuf wi xam-xam bi lay jàngal ni ngay wétalé yàlla ak xam-xam bi lay jàngal ni ngay jaamo yàlla ak xam-xam bi lay jàngal ni ngay rafetale jaamu yàlla gi jamono yi nag ñu nekk ci téere bu mag muy Nahju Xadal Xaaj fi ma min al adabi ilayhi al muridu yaxtaaj Sëriñ Tuubaa def ko ci fànn xam-xam bi nga xamante ni mooy atasawuf jamono yi nag ci ñuy waxtaan nag lu jëm ci wàllu xam-xam waaye majalis ni ngeen ko xamee nag maa ngi koy ànd ak sama sëriñ sama jëwriñ sëriñ xaadim Njaay Kayaar dama koy jébbal kàddu gi mu nuyoo ñu ñëw nag ci waxtaan wi sëriñ xaadim asalaamaaleykum waaleykum salaam Cheikh Jili aouzu billahi min acheytaan rajim وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne topp seen télévision Lamp Fall ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balaax di leen baal di ñaan seen boroom bi nga xam ni mooy borom jéggal te képp ku mu jéggal nga ba jéggal ñu ñaan ko mu jéggal suñu bàkkaar yëpp nuyoo boobu nag ak siyaar bi ñu ngi ci jiital Serigne Jël Abdou Khadir Samb di suñu lépp di nuyu équipe bi nga xam ñoom la ànd la ci wàllu liggéey bi ak mbokk yi nga xam ñoo ñuy topp seen jilli tey nag mooy àllarba mm. eh, tombe ak benn fan ci weeru rajab te mooy mm. ndeyu koor ci atum am tashin mm. atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ci gàddaay rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye mu tombe ñaar fukki fan ak juróom ci mois de février 2000 20. Mm. allah jërëjëf euh, Serigne Khadim Ndiaye kon noonu ko rek euh, balaa ñoo dugg sax ci waxtaan wi mm. ñaari baat rek ci rajab mm. xam ni weer euh, la bu màgg boo xamante ne ay wàccuwaay mi ci waaye am na yenn ci ay xew yu ci xew yi ci yu la waaye yii nag ci yoonu murit la nga tënkal ñu ko rek jërëjëf sëñ jili muy la am solo bi ci gën a fees mooy rañaa yonent bi salaa salaam ak yéeg gi ko yàlla yéegeel mm-hmm. ba mu wujji ko waaye ñaareel bi mooy. Mhm. sori ci ba mu indaale muy julli kon ci weer yi mooy weer yi maanaam université bu. julli li nga xam ne maanaam te mooy li màgg lu màgg la loo xam ne lu am solo bi ci toppi mooy jàmbaari Serigne Touba ju mag ja Cheikh Amadou Fadel Mbacke ci la gane woon jamono wax na ni sëñ Abdou borom dër bi ci la génne woon jamono kii fukk fan ak juróom la génne jamono waaye kee ñaar fukk fan yàgg juróom ñaar ci guddi ga ñaar fukk ak juróom benn ci guddi ga mu guddi ñaar fukk ak juróom ñaar ci la gane woon jamono mu Cheikh Amadou Fadel Mbacke defe naa sax moo tax weeru saa yi duggee rek xel yëpp ah. maanaam Kazu Rajab sax la ñuy wax ñu <laughs> bari Kazu Rajab li ko waral mooy mm. Mm. xew-xew boobu ci amoon mm. te rawatina Cheikh Ahmadou Fadou Mbacké mi nga xam ni eh, màggalam gi ci ne nga xam ne saa yu ñëwee ñëpp a koy ñëpp a koy yëgandoo moo tax daanaka dinaa weeru Kazu Rajab sax lañuy wax lañuy faral di wax <laughs> am mooy ñaar fa juróom ñaar jërëjëf sëñ Xaadim macha allah kon ñu leen ci ndokkeel baax ci weer yi nga xam ne baax na woorlu mais yonte dafa wax ne weeru rajab mooy weeru yàlla chaabaan mooy weeram ramadan nag mooy weeru jullit yi mu bokk ci al ashhurul hurum mooy ñeenti weer yi nga xamante ni suñu borom da leen a warmaan moom mu ber moo tax ñu ko euh, rajabul fadl waaye xare bi yonent bi mujjee def muy xaswatu tabuk ci weeru rajab euh, ci la ko defoon kon sëñ xaadim dañuy ñëw rek ci bindu tay bi am ni leen di fàttale rek euh, ay bis yelewees yëpp ñu ngi woon ci wàllu xam-xam sëriñ bi indi woon ci fukki bayit ak juróom yoo xam ne euh, ci baxu rajiz la ko def waaye nag mu indi yeneen ñeent yoo xamante ne ci daaju basir la ko def mhm. jële ko na ci yeneen yi borom xam-xam nga xam ne dañ ci indi na lu am solo euh, sëriñ bi indi ko moo tax sax foofu la ñuy weel mu dañuy indi tey ji juróomi euh, abyaat yoo xamante ni ku màgg nag moo ko def muy sayduna ali karamallahu wajha mu nekkoon borom xam-xam bu mag ndax yonte bi doo xam ne ana madinatul ilm wa aliyun baabuha man maay dekk xam xam-xam buntu bi nak moy sayyidna Ali mu indi nak ay abiyat yu am solo ci walu xam xam-xam ci waccu wayam ci dayum ci njariñam mu defona ci daju basit ci adarbu thani muy mahbun maqtuun waye nak khafiya bi di hamziya sin khadim muy ay wayu neex mu wax kama khala ali karrama allah wajha الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن أتيت بفخر من ذوي حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه فالجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وأنه يعلمك بأن مما يعين على التعلم ويسهل سبيله أن تتورع في علمك وتطلب لله وتطلبه لله وقلة النوم وقلة الشبع وملازمة الدرس ni kama xala nakam waxe ali allahu yàlla wacca waccaxoo jëmam ja uh-huh. mu ni annaasu nit ñi uh-huh. min jeexatil min jeexatil tamsili ci anamuk misaal uh-huh. ak faawu ñoo yemoo ndax abuhumu seen baay ba aadamu aadama la wal ummu ndey ja xawaaw xawaa la nee na nit ñëpp boo doon leen misaal ñoo bokk ñoo bokk ndey ak bàyyi rek mooy aadama ak xawa rek moo tax fayin atayta boo dikkee hmm. bi faxrin ci damu hmm. min sawis xasabin ci ñi boroomub cër hmm. yu faaxiroon ñuy damoo bihi ca cër ba ne leen faqtiinu ban ba wal maaw ak ndox ma moom ku lay jaay ab <laughs> cër bu réeg yooyu nekka na sa xel dem ca ti ban ba ak ndox ma rek muy aadama ci loolu leen nga bind te ñun ñëpp ñoo bokk baay mu ni mal faxru déet damu illaa li ahli ilmi ndara ñeel ñooñ xam innahum naka ñoom hmm. addilaa way tegtal lanu hmm. alal hudaa ci jub ga hmm. li man ñeel képp koo xam ni istihda sàkku na ak jub nee bu fekkoon ne damu nit war naa damu ñu ne borom xam ñoo war a damu waaw ndax ñoom ñooy fekk kuréel ñu gindi ko teg ko ci yoonu jub waaw mu ni waqadru kulli imriin mu ni tolluwaay bépp cam maakaana mooy kem la mu nekk yox sinuhu di ko rafetal nee na nit ku nekk. la mu def ci lu rafet rek. mooy tolluwaayam mooy tolluwaayam. mu ni fal jaaxilu na way réer ña. ah ay noon la. Hmm. li nga xam ne ñeen ñooñu xam. Hmm. nee na booy xool nee na ku réer. noonu ku xam la. xam la ah, waaw waaw. <laughs> mu ni fafuus na làq. bi ilmin ci xam-xam. taayish kon nga dund. xayyan te aji dund. bii ci xam-xam. abadan faaw. ndax kat annaasu nit ñëpp. mawtaa way faatu loon mm. waaye wa ahlul ilmi ñooñ xam ya axyaa ñooy way dund ya waaw nit ñëpp ay néew lanu ñaam xam-xam rek ñooy dund na mm. mm. annahu naka moom yuallimuka mu ngi lay xamal ni bi na mimma naka bokk na ci la nga xam ne yu'inu dana dimbali ala taalumi ci xamlu wa yusahilu tey yombal sabilahoo yoonam mooy ah. anta tawarraa ngay sàmm fi ilmika ci sa xam-xam وتطلبه وتنكوي ثقه لله إن جري الله وخيلة نومي أجنبي نلاو وخيلة الشبع أجنبي غرق وملازم الدرس أكتخو بندبا ما يوم وقت نتكلم على لا بامو في ليتا خم خم يوم بيشيو Eh, aw yoonam yomb ci yow lool nga am ko mooy benn hmm. nga sàmm sa xam-xam hmm. ba noppi sàkk ko ngir yàlla ba noppi néewi nelaw néew looy looy looy regg hmm. ba noppi taxoog bind ba sëy naa lin nag sëñ jili ah, dana wax ni ginnaaw bu wax yàlla wéyee waxe yent bi saa sam wéy moo gën a rafeti ay wax ay wax sëy naa way wana na ko bu baax waaw wana ko bu baax xam maa dama bëggoon rek eh, ñi seetaan eh, ñi xamoon Seydina Ali nga dolli leen ak xam ñi ko xamul di ko dégg rek nga wax ñu kan mooy Seydina Ali waaw xam nga Seydina Ali sëñ jili eh, yonent kenn da koo mënta doon waaw waaw ab yonent bu fekkoon mënees na koo doon ñu ni kon bu ndoroon doon am mën na koo doon ndax lan ci xam-xam muy benn ñaareel bi ci ñàkk su jootal xewam mu sa def naqar yàlla Seydina Ali karama laa wa ci woo waaw bi ci topp mooy yonent bee ko yar te mooy gone bi jëkk dugg ci lislaam ndax boobu dañuy ndaw rek waaye bu fekkoon ne mag la woon sax hmm. man ne mën na ni moo jëkk dugg ci waaye nag comme ndaw la moo tax att bu am ci moom mooy gone bi jëkk dugg ci lislaam ba nopp mu ne njàmbaar joo xam ne ci lislaam jàmbaar ñaari xeetu njàmbaar la amoon hmm. njàmbaaru xam-xam gi newoon ci moom ak njàmbaaru xare gi newoon ci moom ndax Alioune dana wax ni ku ndaama la woon dafa leeloon ba noppi nekkoon koo xam ni ko mm. amoon ab yax la waaye nag eh, ku mu musa neen sax maanaam boo ko musaa gi sax bu ne ci xare da ngay <laughs> <laughs> waaw da nga koy kii xam nga gaynde daal <laughs> donc day mel ni gaynde ndax ndax ñàng ngim ñàngoon muy doon koo xam ni ba noppi te sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem Madinatu Munawwara mm. moom la bàyyoon ci néeg ba te xam nga lu ne mënoon na ko jaa ah, fekk nag lu ne mënoon na ko day dénkaan dañ ni ka nga wóolu comme nag yonent bi moom la wóolu kon mooy li ma la wax waa ak yonent comme kenn du ko donn moom yàlla yàlla te yonent bi saa sa moom mooy yonent bi mujj yonent yi waaye boo xoolee aw doxaleen ak i jëfam ak tolluwaayam saaba yëpp nangaloon nañ ko ci xam-xamam ci njàmbaaram ci jaamu yàllaam ci teyit ak yonent bi saa salaam ba gim ko bëggoon ak wóolu gim ko wóolu woon tey saxaaba yi da ngay xool ne tey hmm. ñetti saxaaba yi ñu koy tëkkaleel ndax li ne alxulafaaw rashiduna boo ne aboubacar omar hmm. Ousmane da nga naa Aline te Aline hmm. soo xoolee ñooña ci at xaw doon ko mën a jur mën nañ koo jur waaw nga xam ne kon doom lay doon ci ñoom waaye fii ne saa yu saa yu tuddee aw ci ñoom rek da ngay jàpp ne ay morom lañu woon kon kooku nag njàmbaar ak tolluwaay moo ko may loolu ak ni mu bokkoo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax abo abo taalib mii bàyyam ak abdoulaye mii jur yonent bi ñoo bokk ndey ak baay tey te benn bi ci topp mooy xam nga ni mhm. abo taalib ginnaaw abdul mutalib bi mu làqoo maamam abo taalib bàyyam moo yar yonent bi sallallahu alayhi ma nga woon ci kër ba nopi mu jël alin jox ko yalla ñu nañu ak yantabi sallallahu alayhi wasallam moom yëpp yonent bi sa alin yonent bi sallallahu moo ko yoroon waaw te nak bo xolé xoolee mm, mm. bo dikaté ci souf rek ba bëgg suñu suñu jambaay Serigne Touba da nga mengalé <laughs> tollu waam ci wét gogou xolé maam Thierno Ibrahima maam Thierno Ibrahima waaw ñu maam Thierno Ibrahima gis ngeen ño bokku lepp ba ci jëm ak yépp ci jëm ak ak ak woy geeg ak fulli njàmbaar geeg yoy yépp manam da ci ba nopi tay xoolal sëñ bi ñim mu tax woon nga xam mo moo lepp ñu bi mirage miraas Mamoon Sari ni kaayam bi la soxla ak Thierno ak Thierno est-ce que nga xam ne sa teqaloo ko maam Thierno bi te ginnaawam it ba tey moom la ko dénkoon moom la ci géej gi dem Madina ginnaawam Ali Ali la ko dénk ñoo bokk lépp waaw ñoo bokk lépp suñu tuwaa moom eh, hamdan li rabbi xayri mu rabbi xadaram maqal bi liqtidaay loolu rek la waaw da nga yent bi rek mi ngi sëñ Xaadim moom moom la am na solo nga xam ne kon Euh, moom mooy baayu Xasan ak Xuseyn moo jëloon Sayyidatuna Fatima waaw kay ñëw xam ne daal wàcc waay yu rëy daal euh, am na ko mooy chérif yi ngay dégg yëpp moom moo leen mooy seen waay waaw xam nga loolu dayoo la bu rëy waaw hmm, hmm. macha allah lii nag karama wàccaxoo googu tamit hmm. euh, saa buñ ko tuddee bëggoon naa nga leeral lu ko waral waaw xam nga seen alin mooy li ma wax sànq rek xam nga sëñ ji li yàlla mooy def loolu waaw ndax euh, fi mu juddoo. Hmm. ak fi mu nekkoon. Hmm. mënoon naa def yëfi gone. Ah, waaw waaye yàlla da ko aar. aar est-ce que. bi mu tolloo ci loolu rek. la ko yonent bi coppet teg ci wetam. da nga dégg naa fukki at yooyu la am. waaw waaw mu nekk hmm. gone bu tuuti mu jox ko. mu yor ko. defar ko lépp bi muy dugg ci lislaam fukki at waa waa waaw waaw bi muy dugg ci lislaam mais bi bi bi bi xam nga Abu Taalib dafa amoon ay ay doom. waaye dañuy wax ni yont bi da ko gaaw féetale àll yi da ko gaaw féetale yont bi saa mu yar ko ngir wàññi ko njaboot ga ci wet ba noppi ak jafe-jafe yi mu nekkoon seen àllin kon hmm. musta teq musta dem ci naka su dul noonu musta def ci ndaw jaaru ci ndaw kon kooku yàlla da koo teral ba noppi defal ko nag loo xam ni hmm. du jafeñ-jafeñ la ndax li tax mu jafeñ sëñ sëñ jili booy xool hmm. eh, bi bi bi mu ñëwee ci yont bi sallallahu alayhi wasallam bi mu taqoog moom hmm. ba bi ni ko yent bi saa wane ginnaaw ba ni mu hmm. fi jógee Seydina Ali mos sa sopp ko est-ce que moom naka jekk maanaam histoire am soo ko génn woon maanaam boo bu la neex nga dem atam yu mujj atam bu mujj nga nga wax ko mooy atam yu yëg <laughs> loolu lu jafe la waaw lu jafeñ la maanaam loolu istiqaama te nekkoon goo xam ne maanaam loolu du du du lu yomb daal maanaam yàlla moo mooy aara noonu rek ndax sax am na fu ñu jaar doo dikkaat doo dikkaat waaw waaye gis nga moom yàlla da koo aar ah, naka jëkk da koo aar ci loolu waaw mu nekk nag moo tax moo tax moo tax ñaare moom lay saa yu ko tudde rek ni karama laa wacce woo yàlla na yàlla gën a dolli teranga waaw yàlla teral na ko nag moom waaye gën ko dool rek <laughs> gën ko dolli macha allah comme noonu ko waxee rek mu indi wayu rafet xam ne kon bayit bu njëkk bi moom nga ñuy e, leeral rek dafa ne annaasu min jihati tamsili ak faa um wa aadamu wal ummu xawwaa mm-hmm. mu ne nit ñi Eh, ci buñ leen di misaare ñoom ñëpp eh, eh, ak faawulan mm-hmm. mooy mooy dañoo dañoo yemoo mm-hmm. nga xam mi yemoo nag moom bëgg naa rek nga leeral ñu lu mu ci jublu waaw yemoo gi waaw xam nga yemoo gi bu lay mm-hmm. wax ci loolu mooy doomu aadama gi waaw la lay wax lay wax ndax doomu aadama gi xam nga sëñ jili nit loo ko gën gën amoo droit ni ma ni ko maa la gën maa la gën waaw mën nga koo wan nag man mm. mën ngaa jëflu wan ni yaa ko gën waaye amoo droit waaye amoo droit wax ko mm. ndax xam nga tey nit ki bu fekkente dafa ñëw mm. jëflante yow lu ñaaw nga ñëw jëflante ak moom lu rafet. Hmm. wan nga wan ni wan nga ko ni maa la gën. waaye amoo droit ne ko maa la gën. moo tax gis nga fii ne. Hmm. xeebaate li tax mu bon mooy mel mooy. mooy yu mel noonu waaw léegi nag yàlla da ciy nattu nit. da ciy nattu nit saa yoo xeebee nit ki rek. Hmm. yàlla dina la nattu. bis dina ñëw rek. mu am lum la tiime. tiime waaw ce que ñëpp a xam. loolu loolu mbirum suñu borom la léegi nag kon. dañuy wax ni nit ñi ñoo yemoo ci misaal. misaal waaw la dala ci aadama ba ci ba ba koro kii mujjee juddu àdduna tukki ñoo yem ndax benn bàyyi dana am ak benn yaay muy aadama xaw xam nga da ngay dégg ñuy wax ne sunu maam aadama aadama du sunu maam sunu baay la moo tax mu ne abuhum abuhum de <laughs> ñun ñun wolof ñag ñun xam nga bopp lañu yor lu ñax lu nu mag rek dañ naan dañ ko waaye du sunu maam sunu baay la ndax mooy abul bachar abul bachar waaw mooy bàyyi mbindee fi kon aadama sunu baay la hmm. léegi nag aadama la sëñ Abdou Lahad la waxoon ne ñaar ñu bokk ndey ak baay suñu tamante. waaw dégg nga. xamuñu mu ne mu defoon ne ñaar ñu bokk ndey baay kii ñuul. kii waaw kii xees waaw kii xeereer. waaw rek mu bu ñu bu bu ñu bu ñu tamante. waaw ne am am ma ci daal koo xamante ne tegul ci tegul ci yoon léegi mooy loolu. Mhm. xam nga ñun doomu aadama doomu mhm. aadama. lay doon mhm. leen di xaajale nag. dina ci ñëw ci kanam. waaye du yii. ndax nit ki saa yoo gisee rek. waroo waroo ko waroo ko waroo ko wan sa bopp di wan lii laa doon ci yow wala lii laa mel wala maa la gën a kii wala nangam bu dee alal nga ko ëppale waroo ko wan bu dee xam-xam nga ko ëppale waroo ko wan bu dee juddu nga ko gën a rafet la waroo ko wan yow lu mën a xew da ngay jëf rek ñu lu dëppoog loola ñëppay xam ni kii doo moroomam waaye boo ko bëggee wan nag ni man du ma sa moroom di ko mm-hmm. jaay ni maa du yooyu mm-hmm. déedéet ma tax nit ki mm-hmm. nit ñi ñoo ci misaal ndax benn suñu bàyyi mooy aadama sunu yaay mooy xawa moom la wax ci wax ji kon léegi jeex na léegi nag kon nag fu rawante gi nekk daan la ko wax ci kanam waaye rawante gi moom nekkiwul ci doomu aadama gi nii doomu aadama moom doomu aadama dong la man a xew nee naa la ba tey ab yonant li muy nekk nekk ab yonant bu xiifee day lekk ka gën a kàccoor bu xiifee day lekk rek <laughs> yaa dégg ab yonent bu feebaroon day faju day faju ki gën a kàccoor bu feebaroon day faju kon yooyu ñoo ciy yem ñoo ci yem ay ay ndoomu aadama gi ci boppam kooku moom ñoo ci yem kon suñu baay bi mooy aadama suñu yaay mooy xawa waaw macha allah am mi jàngale mu mag daal am na ci moo tax na mën na fa in atayta bi faxrin min zawi xasabin yu faaxiruuna bihi fa tiinu wal maaw nga xam ne dafa mel ne daal damu sax moom dafa baaxut moo tax nag euh, sëñ Xaadim bayit bi daa nga leeral ñu ko moo mm. ko bu fekkente nit ñi dañuy euh, nekk di damu mm. lan moo jar damu damu dëgg waaw xam nga sëñ ji damu nit war na woo def sëñ ji li damu mm. ku koy def rek bis dina ñëw di di nga ko rëccu bari na nag ci jamono ji waaw lool lool lool ndax xam nga dafa nekk jamono jom loolu lu nit ëppalee la ko wan bëgg la ko wan waaw waaw mooy baat bi nga xam ne noggatu noggatu waaw xeetu la <laughs> xam nga nit ki bu la ëppalee daal di la ko wan mu lay noggatu ci loolu waa Hmm. léegi léegi tey maanaam. Hmm. nit koo xam ne dafa bokk fu baax. askan wu baax. moo tax baat bi. Hmm. ñu ne xasab ñu ni bari ngor. bari ngor moom mooy kii bi kii bi. ismu faa'il mooy xasib. waaw xasib. mooy aji bari ngor. ngor waaw. ñu ne xasab mooy ngor. mooy mooy ngo mooy koo xam daal. gore dafa nekk ci moom. kooku nit ku baax la. nit nit bu gorewul. bañ na ko ba muruwaatul. daa bokk ci lislaam ci lislaam ndax fu mu nekk diine nekk fu mu nekkul diine nekk fa mbañ rus waaw mbañ rus léegi ñu ni nag mhm. ki nga xam ni dafa am bokk ci askan wu baax su ñëwee ci yow di la wan ni maa la gën waaw loolu la wax nee ko mhm. waaw man maa ngi lay xaar ci ban ban mbaag ndox ma rek <laughs> nu mën a xew mooy dafa waxoon sànq rek lu mën a xew ñoo bokk baay ñoo bokk yaay aadama mooy sunu baay awa mhm. mooy sunu yaay te te it Hmm. na nga xam ni ci ndox ak ban dañ ko sàkk rek dañ ko sàkk kon yow sa sa ngën ngën ngënal ci loolu ñoo ci yem la nga may wan ni ma yaa ma gën ñoo ci yem kon ngëneel gi fu muy nekk nekk foofu day nekk ci jëf ja jëf ja waaye du nekk ci judd bi kefe ndax juddub kese hmm. sëñ ji li lu mu bax bax baax boo juddoo fu bax lu mu bax bax baax wala nga bok fu bax lu mu bax hmm. su fekkee do jëf-jëf ju dëppoog loola yow lool loola amatul njariñ ci yow njariñ ci yow lola lay jublo wax nit ki su ne fay ñew di la gën wala du sa morom hmm. wala mala la gën judd wala mala gën askan togal deglu ko rek hmm. ba mu noppi nga xol ko lamay def lamay def bu ak lola d'accord bu yow mëno ko def d'accord way fekkente ne yow lu la gën gën askan yaangi yaangi yaangi lu gën li muy def kon gënul kon yow yaa yaa ko gën sax ngay wax <laughs> waaye amoo droit sax wax ko waaye yaa ko gën ndax ndax nit moom ci jëf rek la nit ñi gënante ne te nantewuñ ci leneen jikko yi ñuy wax yonent bi salaam bi ko yàlla tagge da ngay xool jëf ja jëf ja nit lii jikkoom rek lay def rek kon kon jëf ji hmm. mooy dëppoog jikkoom loolu nag la wax ni kon hmm. ku lay jaay ni man maa la gën wala maa la ëpp ngor wala maa la gën a askan <coughs> mu ni da nga koy nekk ci ban baat ndox ma ndox ma ndax yéen ñëpp yéen a fa bokk daje kon nit ki li nga koy gënee da nga koy jëf mu gis waaye du nekk wax kese fii laa bokk faa laa bokk naam ba tey baax na naam waaye nag bu noppi ñu xool loo def waaw ñu xool loo def macha allah xam nga loolu yonent bi waxoon ne la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin illa bi taqwa kullukum min aadama wa aadamu min turaab nga xam ne loolu xadis boobu moo ko te nee na ngëneel newul ci arab ci kaw ku dul arab newul ci ku dul arab ci kaw arab ne lu dul ci ragal yàlla mu ne yéen yëpp yéen a ngi bàyyi ko ci aadama te aadama mi ngi bàyyi ko suuf suuf moom la suuratu zaariyaat inna akramakum mm-hmm. inda allahi atqaakum mm-hmm. te fii ñu toll nii sëñ xaadim daf ci am yomante lii dañu koo def sax arme mm-hmm. maanaam téye ko noo xamante ni ñoom dañ koy seet ci askan seet ko ci juddu seet ko ci ci ab ba ci sant. nga xam ni ah, am na noo xamante ni boo boo boo boo ni bokkoo rek pour ngir ñoom. Euh, duñ la considéré sax te te loolu du diine daal mm-hmm. ndax dafa mel ne sax l'islam mm-hmm. moom bi mu dikkee yooyu la njëkk a dindi mm-hmm. pour pour wane ne rek maanaam nit ñi ñëpp dañoo war a yam ndax euh, wa min ayaati yi euh, ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum nga xam ne yàlla moom moo def ñuy wuute ay làmmi wuute ay der loolu def def yàlla waaye du nit ki kon nag nit ki nag kenn du ko euh, ne euh, ci lu yàlla def mm-hmm. nga xam ne loolu moom bu dul bool rek kon kon kon day mel ne kon nit nekk gi nekk nit ko ñuul kon baaxuñu xam nga li ci nekk nii tey <laughs> soo xoolee euh, maanaam bu ñu koy misaal Serigne Touba mm-hmm. mooy gën a gaaw ñu mën koo gaaw dégg waaw boo xoolee mm-hmm. eh, askan yi ne woon Sénégal yëpp askan wu ci nekk topp na ko wala am yi ne woon Sénégal soo toppee mag yi Serigne Touba yi askan wu ne topp na Serigne Touba muy benn ndax léegi nag ban ko toppee ba noppi daa am jëf ju ñu doon xàjjale hmm. ñu ni jëf ji askan wi yee koy def <laughs> wala jëf ji askan waa koy def wala ci nangam nangam xam nga amul amul amul maanaam ndigal la yore rek aywa ñoom ñëpp nekkandoo ci xam nga dafa am hmm. bis mu ne njaareem jamono yi mu nekkee njaareem benn tëgg ne ci mbaaram hmm. sol yee yéreem di liggéey ànd ak benn doomam taal taal bi di ni ko uppal upp yi madem dugal na soy euh, weñ gi ci biir taal bi hmm. ni nga madem gis señ bi rek ke ko génn ñëwaat bi mu ñewé laacc señ bi ñu ne ko señ bi da ah, señ bi euh, gisunu ko de hmm. mu ne amande ah, siar ka rek moo ma tax moo tax ñu ah, te nga dem dem hmm. sa mbar ma nga liggéey ndax señ bi mom ki mu ne ah na gis ko rek tax juk de fek señ bi dégg na ko señ bi tell buntu bi ni ko maa <laughs> te mu taal loxo señ bi ñaanal ko bi ni kap buntu bi ña fa ne woon ne xool tëgg bii rek. ñëw rek gis sëñ bi tell bunt bi nii ab tëgg ak kam di tëggam. ak kam di tëggam kam di wax na ne bépp <laughs> weñ gun liggéey ci maay njaareen bi tëgg boobu moo ko def moo ko def ce que da nga jooju wax loolu laa la jubloo wax tey vraiment ba ne da koo jàngale nag moo tax gis nga nit hmm. ni kii maay maa gën maa la gën askan maa la hmm. gën nangam waa hmm. ba noppale yow dan nan la xool yow loo def def yow <laughs> xam nga ni kenn du ko att ci barab la bokk xam nga tey boo xoolee eh, or jamaa manam gas petrol yooyu yep hmm. ndox yep suuf lay joge lay joge waaw fa lay joge waaw. yaangi deg waaw mais lutax jama gën leen for dafa dafa defaree war rek. Ah, rek rek waaw. <laughs> ak ak orbe dafa defaree war rek. kon lool la def manam nit ki. nit ki bu bokko fu bax baax na. baax na waaw. loolu moom gën mo gën ba day bok fu fu baaxul. fu baxul waaw waaye nak ndax limi muy ci yow dañ hmm. koy wax misal ni nit ku bok fu bax xam nga hmm. nu mel sa yu juddo ni bok ci askan wu bax fondement nan ko waaw léegi bu góorgóorlu day ñëw biir def ay biir rek daal di yëg dem léegi ku bokk ci askan woo xam ne du askan wu baax ci misaal ni ko mën a waxee mooy koo xam dafa judd fekk fondement luñ ko moom day fondement mooy fondement gis nga ak baax moom moo ciy sax moo ciy sax waaw acca continuer ci nag ba koroog muy am li mu bëgg waaye boo ñëwee fekk nag askan wu baax hmm. ñu baax yow baax gi da lay yomb ndax ndax baaxaa ngi nii ndax ci nga hmm. juddoo hmm. aywa mooy mooy day ndax saa yoo xoolee nga gis nga koo xam ni dabagoo ko te mën nga koo roy ci baax te te te te ci askan wi la bokk ngeen continuer dox ba nga nga am li nga bëgg loolu mooy fondement bi muy wax waaye nag taxul nag fondement kese bu buñ la fondement teg ñëw ne am naa tabax bis boo ko bàyyee foofu jéemoo yëkkati benn waaye ba ba amagul suuf mën naa lijjanti ba am suuf fondement teg ca liggéey ge ba mu yegg ba dëkk ci tabaxam yow bale léegi sa fondement fa mu nekkoon fa lay nekk kon loolu laa la jubloo kon ak baax ak baax ci boppam kenn du loo xam da ngay ñëw ni fenn la féete déedéet baax féetewul foofu de parce que yàlla hmm. nee na damay génne lëndëm ci leer waaye damay génn leer ci lëndëm xam nga loolu leer na kon lu tax yu moo xam ne damay génn lëndëm ci leer génne leer ci lëndëm mooy ba nga ba nga nekkee nekk ku baax sa bokk ci askan bu baax uh-huh. war a def lu baax defoo lu baax dem topp safaan kon yow génn la ci leer waaye yaa ngi jëm ci ci lëndëm ki nga xam ne yonent yi bari yoo xam ne seen seen waajur lu noonu jaam ay xërëm ay xërëm waaw yàlla ta génne leen génn ci ñoom ñu nekk ab yonent xanaa kon loolu génn génn na leer ci lëndëm kon loolu noonu la mbir mi demee mbir mi nekkewul ci ay askan yooyu fi mu nekkee mooy ku kuy def lu baax la mu xam Serigne Touba mii mhm. gis nga ni mu mel askanam wépp mhm. yàlla di leen tànnoon ñu nekk ñu baax ñoo xam ne mhm. tey bu fekkoon sëñ bi feeñu ci woon it faaw ñoom aw tuur Sénégal ci ak baax xam-xam ak sell ndax ci lañ leen ndax ci lañ xam waaye bi sëñ bi ñëwee ndax dafa doy loolu toog rek ni sama askan wi baax naa toog jàpp sama njàmm lu mu def dafa def loo xam ba fii ne askan wi saa yu ñu ko tuddee bu ñu tuddee sëñ tubaa tudd na askan wi yëpp ah, waaw mhm. tuddee askan wi fekk na des na mhm. loolu nag jëfa ko waral ak melokaan <laughs> waaw te it ba ba mu melanoon ay doomam ñu ñëw xam nga mënoon nañ sëñ bi moom fi mu toll kenn toll fa mooy lépp jàpp seen njàmm waaye doomi sëñ tubaa joo ci génne di waxtaan ak ak dundam ku nu mën a roy la ndax jaar na yoon woo xam ne xam na ni fii la bokk la bokk ñi sëñ Tuubaa yar xam na ni ñoo sëñ bi taxoo kon jeex na kon loolu laa la jubloo wax moo tax kon di wanewu ci maa ak fii laa bokk ak faa laa bokk loolu loolu jëru ko ndax kenn ko ne fa nga bokk xam nañ ko léegi li ngay def rek la ñuy xool waa hmm. waaw te tey roy nag sëñ jili du caay ne ku nu gis roy ko roy ko déedéet déedéet képp ku bàyyiwul loo gis roy ko di nga mos a roy loo xam ne fa muy jëm ak yow du neex du neex waaw wax nga dëgg de eh, nit ci jikko ju rafet nga koy roy waaye duñ ko royee ci lii laa nekk ak wala laa laa bokk déedéet da nga koy ci jikko ju rafet jikko ju rafet waaw xam nga boo xee sax yu roy mhm. da ngay gis lam cay teg mhm. ak tagg la ci te xam nga damay gis ni ci alxuraan ba mu daj mhm. bu indee mbooloo mu ñu mu ñuy mu ñuy roy maanaam mooy ñi àndoona yonent yàlla Ibrahim waaye bu dee bu indee kenn moom yonent bi rek lay wax sallallahu alayhi wa sallam walakum fi rasulillahi uswatun xasana mm-hmm. waaye nag liman kaana yarju llah wal yawmal axira mm-hmm. wa zakara allaha kasiran nga xam ne kon moom ku mata roy daal la ñu roy la lañuy roy waaw mun ah, mo nop des na des nag leneen waaw am lu ñu war a roy ak lu ñu war a roy maanaam ki donte ki ngay roy waaw waaw am na loo war a ci moom ci moom waaw waaw waaw am na loo xam ne dafa am ay xusuusiyaat dafa am xusuusiyaat yoo xam ne yëfi boppam la mooy yëfi boppam boo ko ci yéeme roy doo doo doo dem waaw yonent bi doon na ko leeral ne nee na yi nga xam mu joxe misaal ci koor gi mm-hmm. am nga xam ne daan woor ba pare rek daal di wéyal am na na ko olof di tudde waaw mm-hmm. nga xam ne du dog mm-hmm. léegi nag mu def ko ñetti fan am ci ñu ko bëgg euh, toppandoo toppandoo mooy leen déedéet lii bu leen ma ci roy ndax man am naa euh, ku may lel di ma nàndal nga xam ne moom moom kon yooyu kenn kenn ak yeneen ak yeneen yoo xam ne waaw moom moo tax loolu tamit lu mat a xam dafa am ñoo dañu mën a mm. ñu def ko li ci gën a yéeme ñaare loo xamante ne nii sax seen bakkan da cee gën a jëm mm. yooyu la ñuy roy waaye jafe yi sax <laughs> dañ koy teg xam nga tey mën naa joxe misaal mm. xam nga tey da gis kilifa goo xam ni mm-hmm. ci wàllu ñam sax nii day am day am mu gën a taam waaw waaw waaw ko jëfandikoo te xaj na ñam woowu sax yow feebar nga feebar boo xam baaxul ci baaxul yow kon yow bu ko roy bu ko roy nga xam boo ko defee loolu ndax yooyu la waaw waaw nit ku am na am na am na lu ko aada may mu bëgg ko am loo xam ne maanaam loolu am na yoo xam ne kenn du ci roy nit nit liñ koy roy ci yeneen lay doon waaye du ku mbiri aada yaram ak wala aada yi kéeg yooyu yooyu beneen mbir la beneen mbir la xam nga bi bi mu waxee ne du ma lekk euh, laaj du ma lekk soble mm-hmm. du ma lekk njéeréer yooyu mën nañ ko jëfandikoo ne gis naa soble sax kii ak laajeeg yooyu day am yu bari yu muy faj waaye fekkee da nga yonte bi daaw ko jëfandikoo hmm. duma ko jëfandikoo loolu digalu la ko daf ni man du ma ko jëfandikoo waaye yéen mën ngeen koo jëfandikoo hmm. moo tax yooyu itam yu mata <laughs> am la xam nga dafa am benn euh, kilifa gu mag gu ma wastoo waxtaan ci mel nii waaw mu ni dafa am moom sa toog benn jitaay ak benn magam te ci mag ñi toppoon Sëñ Tuubaa la nee na nee na nee na kooku di séddalee guro waaw guro mais bi muy séddale guro di séddale guro gi waaw ba si fekk moom ñoom sax ñoo dendee ñoom ñaar waaye séddu ko daal dafa sédd ñëpp guro waaw léegi daal dem yónnee pasti pasti waaw yónnee pasti ko jox ko mu tàmbalee màcc kenn koo xam toppoon na seen waajur nee na gis nag loolu daal koy woo bi mu ñëwee mu ñu génn ñoom ñaar mun ko ah man a gis naa Euh, sëñ diw sëñ bi def nangam ak nangam hmm. joxe na guri ñëpp ba ñëpp ba bàyyi la euh, daal lay jox pasti na fonk pasti pasti la mu mu tontu ko ni kaa man hmm. jàppoon naa ne yaa ngi may a royloo ci moom daal lu muy macc pasti rek <laughs> ndax loolu ah, da ko bëggoon rek <laughs> mun nga fii ne kooku nga yam am na leneen lu loo xam ne bëgg ko du ko def te ñun ñu koy jëfandikoo loolu kenn du ko roy nit ndax loolu aaday boppam <laughs> rek mun nga ne kaay wax li tax mu jox ma pasti bi pasti mun ka moom xam na ne du ma yëy gura mm. xam nga mu xam ne du ma yëy gura moo tax joxuma gura joxuma gura moo tax mu kon ni mu joxe ñëpp gura noonu lay joxe moo tax mbir mi du koo gis rek lu ñu def ko nga roy ko loolu loolu baaxul ah. mu am solo nga xam ne jàngale mu mag sëñ Xaadim mi ngi ci léegi nag mu mel na nag bi mu waxee yële nag muy indi nag li tax nag manam nit wara damu don sax ken war sa damu muy tax na li tax na nit ñukoy wax ni dafa bax mu nak mal fakhru illa li ahli ahlil ilmi ala al huda liman istahda adilla wa nga xamni kon bayit bi moy am solo lool xam nga sëñ di lu am solo la wax fi ndax day mel misal day mel ni tey ba ci mbir aduna yi nit lépp loko jàngal ba am ci ndam ba ñëpp diko ko saa yu yuñ ko tuddee ci indi nga toog da nga naa ah moom maa ko jàngal de. waaw dégg nga da nga wax ji. xale bi fi génnoon fii demoon demoon réew biti réew ma te gañe eh, ndaw ndaw sax kii xale kii ma soxna jaara lam gañe woon. Mhm. fii ne ñi jàngal. loolu rek ndam la ci ndam la ci ñoom waaw waaw. yaa ngi dégg fu ñu ciy ko jàngal. ndam la ci ñoom. Mhm. fii ba ci ba ci oto. waaw ko jàngalee nit. mu mhm. jëm jékki-jékki sax nekk safoor bu siiw. waaw da nga naa maa ko jàngal oto waaw ba ci mbir yëpp ko <laughs> léegi mooy lii muy bëgg wax loolu nag mooy ndam ndamu gi muy wax yooyu la tey maanaam nit ki boo ko defee lu baax lo jili wax dëgg yàlla fu ñu ko tuddee man nga ni maa defal nangam loolu loolu loolu loolu du wane sa bopp maanaam ab cër rek sa diggante ak moom yenn saa sax kooku moo koy faral di wax mun li nga may seen di boo ko fekkee ci nit da lay teral woo la teg la ci watam naam kii moo ma jàngal waaw fii nañ fii nañ mboolem fi dégg nii maanaam tey muy mu am xam-xam tey ki ko jàngal bu ko fekkoon ci mbooloo dana jóg waaw ñëw ñëw nuyu ko jox ko ñaar loxo dalal ko <laughs> jox ko cër ba noppi moom moom sax mën naa bañ a wax waaye danaan kii ngeen seen nii lu ma xam moom a ko xamal waaw yu mel noonu nag waaw nit boo ko mm-hmm. yaree boo ko yaree mm-hmm. yar ko teg ko ci yoon wu baax ba mu mm-hmm. mel ni mu war a mel ba tey noonu lay demee rek maanaam lu ma am ci àdduna ginnaaw yàlla kii moom ak kii moo tax ma am ko ndax moo ma yar moo ma jàngal métier moo ma defal nangam tàmbali day wax day wax ba ñëpp xam ni loolu ab sag la léegi nag nii la mel nag ci borom xam-xam tey nga sëñ jili su xamul mel ni man nga dem ci boroom xam-xam mu lay gindi di la gindi di la gindi ba nga xam li nga war a def kooku hmm. noo mel rek hmm. gannaaw yàlla moom moom la waaw te da ci jëf joo da ciy am da ciy am kon kooku bu damu war a damu ni man fexe naa ba jubal kenn ba jubal a àdduna li ci biir waaw léegi nag yow ma hmm. yow mën a wax yow man nga ni man daal lu mën a xew fexe naa ba diw jub na te man maa ko jubal maa kon yo kooku mooy borom xam-xam. waaw bu damu doon am bu damu waroon. kon kooku moo war a dam moo war a dam waaye damu ci loo xam ni fii la lii laa mel naa déedéet amul amul solo ndax tey boo xoolee defar nit. du lu yomb sañ ji. jindi nit. du lu yomb. jàngal nit ba xamal ko teg ko ci yoon. du lu yomb yooyu jafeñ jafeñ la. mbir yu jafeñ la yoo xam ni. nit ñi dañ koy miin dañ koy miin waaye waaye du lu yomb. ku mel ni Cheikh Saliou Mbacke gis nga ni melo. xam nga loolu du lu du nekkul lu yomb de. moo tax mi wax Cheikh Saliou Mbacke maanaam keroog rek maa ngi ci am ku ma ciy waxtaan waaw sëñ Modou Diouf maa ngi koy nuyu baax. Mm. nekk foofu. Mm. Euh, euh, dëkk fii ci. Mm. Euh, Toubatul. Toubatul waaye day jàngalee fa dëkk benn dëkk fa lay. ñu ngi nuyu baax sañ Jibril. moom nga xam ni moom. dañ ci doon waxtaan ci wàllu yar. ci sëñ Saliou. Mm-hmm. maa dafa jaar ci moom ñuy waxtaan yu bari. man li man ko sëñ Saliou jagle gi mu amoon. fii ne kër yëpp. kër yëpp ci yoonu murit daje nañ ci kër sëñ Saaliw yar leen ñu ne maa mën ka fii ne yi mu yaroon ñi maanaam ñi jaar ci daaraam du ñëpp jëblu ci moom de ci ci yeneen kër lañ bokk <laughs> ñëpp boo xoolee boo ko génnewoon lim ba ñi jëblu ci moom ñoo ñoo gën a tuuti maanaam kër yëpp kër yoonu murit yëpp maanaam daayee sëñ jaar nañ fa tey amul génn kër goo xam ne ci yoonu murid la te amul am ku bokk ci yow ku dim do te jaarul daa daay seen amul loolu am na man nga xam nga loolu jegle la mu naa man ka ne léegi nag yar bi mu kooku xam nga ni kooku kooku moom leer na ni kooku jar na ci àdduna ñu bind ab ay téere ci moom jàng jàng doxee àdduna ndax nit ki boo ko tegul ci yoon hmm. sëñ ji li day yàq kon kooku sëñ Saalu maanaam hmm. misaal yi misaal yi nag damu hmm. tey tey bu damu doon war sëñ Saalu mën naa yëkkat loxoom damu <laughs> la muy damu da nga koy gis ay junni junni nit ñoo defaroo ci moom jàng ci mu am xam-xam jaa jaar ci ay mbir tegu ci yoon ba noppi mhm. yërmande ji muy am ci moom ñoo seen i waajur ñoo yem képp mbaa sax ju ko raw nam leen yoreeloon nga xam ne moo jëloon àlli boppam di ci def fayeekuwul di la dundal di la dundal di la wodd di la wodd di oh, boo feebaree mu faj <laughs> faj oh, faj la ba noppi di jëflante yow loo xam ni oh. mën ngaa dëkk ak sa sa waajur du jëflante yow suñu sal ni mu jaxasoo ne gone du waajur yëpp mën a jaxasoo seen i doom moom fekk nañ ko ay yoon mu toog ci ak ci xaal boo xam ne yéeme na waaw waaw xale yi toog moom muy waxtaan ñoom du ñu dugg ci koy ak yeneen ak yeneen ak yeneen ah, xam nga maa ngi ci mm-hmm. nett di benn bis mm-hmm. eh, ci eh, sëñ Saalou Niang ñu ngi koy nuyoo Kayar dëkk so eh, af bu ma ci nett li woon mu ni bin nee ci daara dafa am bis sëñ Saalou mm-hmm. woo ko woo leen ni mu ngi toog nii ci njoowaan gi moom mu am ko mu wax ni ko doxal ba nee mu dox ba noonu mu ngi ko rëddal foo rëdd wu xaw a yaatu tuuti mu rëdd woon rëdd wu xaw a gudd mu mu ne amal ñoo jël ñu taxaw ci rëdd bi léegi wal wal ndongo ku ñëw nag bu mu jéggi rëdd bi waaw nee bi ndongo yi ñëw bëgg si hmm. ne nee na ku ñëw du jéggi rëdd bi mu am ku wax ni ko fii ma toog nii ak rëdd bi sama abdouram dafee réer nga bëgg nga jeexal boobu dañ doon jàngal ni denc xaalis waaw nee na nee muy nee na muy jeex ne am na koom daa ñëw sax ne hmm. ñun waa lan la ni ka ah, sëñ bi day maam nee na hmm. ab dërëm la mu ni ab dërëm rek hmm. sëñ Saliou ni ka bu doon bu doon sallaa doon koo moomul rek de waaye boo ko moomoon diñ ko seet <laughs> daa am leen bëgg a jàngal xam nga ko jaxasoo gone <laughs> nee muy jeex ba dërëm bi feeñ mais dërëm bi feeñe nag ne ci la leen woo nag waaw ñu ñëw toog mun leen dama leen bëgg a wax ni ngeen denc xaalis xaalis waaw mais bu dee xaalis boobu ay këyit la mais boo ko dugalee boo ko téyee nii da ngay dugal sa poos ba mu yegg nga jël sa loxo càmmoñ bi dugul ci poos bi nga nga képp xaalis bi téye ko yaa ngi dégg. rocc sa waxo. wiccax ko wiccax ko bu bu dara wadul nga xam ne lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir <laughs> xam nga loolu boo xoolee bari na xaalis bu wad mën nga <laughs> yenn saa yi nit day dugal dara di génne am lu waddaale bari na boo dugalee sa ci poste ba mu xam ne dugg na rek bàyyi ko am <laughs> kum gees ne ka mi nga xam yow laay jëf leen ci wàllu xaalis fekk loolu rek leen bëgg a jàngal jàngal nag sax wu am am jot ko def xam ko def nga xam ni kon sëñ Saliou maanaam loolu nag laa lay jubloo kon bu damm doon war waaw ah, moom moo kon moom moo war a dem waaw defar nañu bare bare bare ñaata ci ay nit la defar te fii ne dama naa ne hmm. nee leen fii bi mu fi nekkee daaw dégg ko tudd fii lu waay lu waay wax boole ko ci boole ko ci waaw waaw moo Sénégal kenn xamu seen i mbir kenn xamu ko moom booy dund kay moom loo mën a def fii ne fii mbiru xam nga bis bu ne ñu ngi wax ci mbiru daara waaw ci coow doo dégg ko tudd ah, yow kay bu fekkee ne yow mbiru daara ngay coow loolu nga dugg ci ah. yow kii def li mu def ñëpp gis ko ko yow damal jàngi damal laaj leen nu ñuy def nu ñuy rek waaw ñun leen nii ngeen di def uh. tamit daaraam du dóore du dóore nee na dóor xale sax nee na daw daw xale la waaw waaw léegi xool li ñuy jàmbat nii fi mu ne yéemee na hmm? dóor nañ ba gaañ ki dóor nañ ba ah. def nangam uh-huh. xoole jàngal nangami junniy nit te doo leen dóor te leen war a xam ñu ngi koy xam te leen war a mel ni ngi niy mel léegi kon kooku kay yow boo boo jaaxle ci mbir yooyu dama laaj leen laaj ko waaw ñi ko siyaara ngi fi sëñ siyaara ngi fi sëñ Moussa Waxtaan ngi fi sëñ Jile ngi fi sëñ demal daara jaa ngi fi jógu fi uh-huh. kon demal laaj leen ni leen ñu nuy def uh-huh. ñun leen nii ngeen def uh-huh. waaye Sénégal dem jiggaani mbir dana gënal <laughs> maanaam ñëw ñëw fi nga xam ne moo leen gën a jige fi ne mbiru daara moom ku ci coow Sénégal da ngaa la neex wallaahi wallaahi ndax sëñ Sall wane na lu leer nañ mu leer nañ kon amatu lu wax kàddu goo nga ah. wax ni kenn waratu wax daara sa tudd ñu waaw loolu moom da dafa dafa doon lu lu lu wér ndax da see def loo xamante kenn mu def kenn defu ko daara yi ngay dégg yëpp boo boo ko càmbaree am na nu muy doxee waaye moom moom euh, ni mu ko doxale moom moom rek moo tey tam alxuraan ji moom mooy jiitu waaye fànn xam yëpp dañ ko ciy jàng bu yàgguloo rek ñu ma fi dalaloon am na ci xale bu yéeme boo xam ne ku mën a taalif la te gannaaw sax sañ sëñ saalifam ci la nekk ci daara ji waaye gis nga ay ay way yu rafet lay way nga xam ne ci jamono yooyu ba ci sëñ Xalil Mbàkke bu sëñ xaf Hafsa amna bis ñu fekk ko fofu waxit bu tarxee def foo reportage bu mag way ay xasaayid yu yeme la ci doon def da doon def arab ni def olofal kesse boole olofal ak arab te lool lépp mi ngi ko jàngé ci daara yi seigne salih yi seigne khadim kon mal faxru illa li ahli al-ilm innahum ala al huda lima istahda adillaahum yonent bi do xon ni ala al-khair ka fa'ilihi ki xam ne dafa laa wan lu bax neena neena dafa melni rek moko jëf ndax lo ci jëf rek da ci am benn pourcentage xam naa nag euh, bayt mu bii moom la ñuy mujjee nii ndax waxtu bi li ci des bariwul mm-hmm. buñ ñëwaatee eggale ko mu ne wa xadru kulli mriin maa kaanu yuxsinuhu mm-hmm. fal jaahiluuna li ahlil ilmi aadaau mm-hmm. waaye nag li mu wax ne nag euh, ca dayab cam su ne euh, lim nekk di rafetal rek mooy loolu mooy dayoom loolu bëgg naa nga leeral ma ko neex xam <laughs> xam nga tey sëñ jili maanaam sotti dong boo ko gaare woon waa ji war koo raxas. waaw. mun la téeméer laa koy raxase. waaw ko boo raxasee na ma fay la. waa ji wut ndox. Hmm. ndox mi manqué. mu raxas tuuti. saa bi tax ripp cooto bi. ba noppi yàlla dogal. Hmm. maanaam amutul ndox. waaw ko fay. doo ko fay <laughs> ndax defarul. defarul waaw defarul <laughs> doo ko fay. léegi nag boo ñëwee fekk mu raxas oto ba mu ba mu ba mu ni béy ba nopp jël di jël diw da dara diw lëkk ji ba muy nes ne ji boo ko waroon fay téeméer sax ah, ah. soxol mën naa sedd ba nga jox ko ñaar téeméer waaw kon nit ki doyam kemtulaay ni mu rafetal rek loolu moom lu neex xam la ci ci wàllu kii <laughs> lu neex xam la ah. fii tey boo doon jënd boo ñëwoon dong ci passion di jënd di jënd di jënd di jënd euh, añ añ waaw ñëw fe euh, ni ko jaay ma jaay ma ceeb waaw yaa ngi dégg hmm. mu mu jaay la mu nga ñëw fekk ceeb bi jeex muy sedd palaat yi palaat ceeb yi des di ko di ko dajale nga ne ko lii ne mën na yow laa koy jaay doo ko jënd rafetul waaw waaye dem ci tibb ca ca ca cin la defar defar yëpp xam naa jóbee ni sax dañ ko yow defar ñeex ak ba ba mel ni mu war a mel fay <laughs> kon ku nekk tolluwaayam mu ngi kemtulaay li mu rafetal rek loolu mooy tolluwaayam ndax jëf ju ñaaw taxul ñu ci ñuy naw nit jëf ju rafet la leer na lu leer leer ci wàllu ci wàllu moo tax yàlla moom sa mm-hmm. njili mm-hmm. xam nga yàlla ñëpp la fi nekkal. waaw loolu dañoo war a bàyyi xel loolu. Mm-hmm. suñu borom. Mm-hmm. nekk fi ma sàmba nekkul fi ma dem ñëpp la fi nekkal segam ñëpp la fi nekkal nag yow da ngay fexe ba kooku nga xam ñëpp la fi nekkal te lu waaye am moo la ko jox nga góorgóorlu ci moom rek yow <laughs> lu la waaye ba ba sa borom rek waaw ku ñëw fekk la ko dem bàyyi la ci ndax yàlla moom ñëpp la fi nekkal te te te du jaawale jëfi kenn ak morom tey tamit du wuute dik déedéet te du war kenn déedéet waaw moom tey lu mu la wax dina la ko def suñu fi ne moo tax fii ne da ngay xool tey loolu neex naa misaal ci saxaaba yi doon tudd sànq mm, mm. Seydina Omar waaw fanweer ak juróom-ñeent da koo jiitu waaw léegi bi mu ñëwee moom mm-hmm. boo nee Aboubacar koy teg. moom jeex na. waaw mu nekk deuxième te Pastefam rek. Pastefam de moo ko may loolu. wallaahi suñu borom moom xool seen jili yëpp la fi nekkal ba nga xamee rek loolu kon ni ngay def. mooy da ngay fexe ba def lu baax rek. te digganteeg moom jeex na. ku ñëw fekk la ko dem bàyyi la fa. waaw xam nga dañu naan li lazina ahsanul husna wa ziyaada. ziyaada ak li ma ne hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan. xam nga loolu loolu moom leer na nañ. yàlla moom fam ne moom moom mag doomu aadama kay mooy mooy soppee ko. waaw yàlla moom du soppee loolu moo tax fii ne boo xoolee te mm. eh, comme ni ma waxoon sànq. waaw yonent yàlla Ibrahima. waaw Azara moo ko jur moo daan yett xërëm ya. waaw mi ngi ko am. yonant. waaw fii fii li yàlla tudd turu asra ci alxuraan lépp du dara du jàngi nag moom <laughs> <laughs> moo tax ibrahima dong tax ibrahima dong tax ibrahima dong tax ci woon waxoon histoire ibrahima kenn du ko xam kenn gis nga li na mel tax la fi nekkal ñëpp la fi nekkal wéeru ci yàlla daal moo wóor moo gën a wóor wàllu lay fatawakkalu in kuntum mu'minin mm-hmm. léegi beneen béy bi nag beneen xàbb yi mu ne fam jaaxiluuna li ahlil ilmi aada moom it dafa sew nag jaaxal na ma lool waaw yi tax eh, jaaxiloon yi waaw nekk noonu borom xam-xam yi waaw xam nga mën naa jaaxal ku nekk nag mhm. waaye mooy wuute rek la ci jubloo wax xam nga noon moom mhm. ci baatum noon noon mooy koy wuuteel koy wuuteel waaw koo xam du ngeen déggoo bu ngeen bokk ay lay doon waaw bu ngeen bokk xalaat du ngeen bokk xalaat boo jëmee ni mu jëm jëm na la maanaam am nag loo xam ni mhm. eh, tey boroom xam-xam ñaare boo meree ni man jàngoo dangay ngay moom faaw nga wuuteeg moom ndax yow sa xam-xam da sama xam-xam da du sori man damay def ni ba jàpp noonu la mu ñëw déet du nii <laughs> defal nii yaa ngi <laughs> dégg moo tax moom laa na wax keroog ni yenn saa yi ku mel ni man day ñëw jaaxle ci dara laaj la hmm. suma la laajee hmm. yow boma tontu lu depp ak ma bëgg rek man ya yaaroo ñëpp waaye su suma soo tontu lu wut ak lima bëgg hmm. faaw ma la yak kenen kenen wa ya nga dégg lool nak moo tax moo tax foofu faaw ñu bayé ci xel di top di diglu borom xam-xam yi di leen top ci seen doxalin ndax seen jili xam-xam du ay neen kenn du ko faraatu xam nga déglu ben son ni wala déglu waxtaan wala nangam bëgg dem bëgg ko bëgg ba kaaru ko hmm. bëgg jàpp ne yow am nga xam-xam di ko da ngay daan mënut ne xam-xam dañ koy jàng day nekk ci ah, xol ci xol la ko suñu borom doolu suñ dañ ko wax al ilmu nuurun yudxiluhu laahu fi qalbi man yashaa nee na xam-xam leer la ko yàlla sol ci xol ku ko soob waaw ku ko soob bokkul nag déglu dara rek tàmbalee yemul bokkul waaw moo tax moo tax ba ci ay masala borom xam-xam da ngay dégg sax ñoom yu mag yi koo ci laaj masala su ko réeree hmm. du la tontu day dem gëstu ji ko day dem gëstu ji ko. Mhm. benn mu laaj ko ku ku ku ku ku sut ci xam-xam. te te xam loola. mu laaj ko wala mu gës ko ci téere yi ba xam ko door laa tontu. Mhm. mais nit ki yàlla bindul kenn mu xam lépp. faaw mu am lu la ump kon loo lool nag la ñuy wax moo tax xam-xam du kenn duñ ko faraatu. parce que li tax nit du mënta xam lépp. mooy wane ne kon xam-xam. kenn du ko faraatu loolu lay tekki. macha xam nga nit saa yu juddoo. ba toll ci lekk dina xam ne muy lekkee. dina xam li muy naane. loolu amul amul jàng ñëpp ko mokkal dox yaa xam nga ni ngay doxe ah. xam nga ni ngay toogee hmm. xam nga ni ngay tëddee hmm. xam nga ni ngay waxee du tax hmm. nit su juddoo di wolof kenn du ko jàngal wolof day dégg ñuy wax rek mu wax kon la yàlla ni seen seen seen wóotay làng la loolu da ciy nekk kon loolu mbirum suñu borom li nga xam nag xam la kooku da koy sàkku di ko jàng ba su ba ba lu neex suñu borom mu defal la ko ci bokkul ak nag. Euh, da war na maa mën a tëdd xam nii tëdde <laughs> war na maa a lekk xam ni bokkul bokkul gis nga tey boo doon déglu dara rek borom xam-xam ni muy wax ni ku mel ni man di nga déglu ba jàpp ci lu bari. ni damay def conférence dem bu ma demee loolu laay waxtaane su may dem di daanu. <laughs> ndax dafa newul ci moom. nekk waaw nekkul da ko fortaat da fortaat bokkul bokkul. <laughs> wala léegi nga dégg ñu ni. Hmm. kenn wax dara nga ni déggoon naa di wax ndàngam. yow comme ci dégg déggoon naa rek nga yow yow amatul <laughs> yow amoo amoo amoo loo wax da ngay noppi. parce que nit nit bu fekkee ne ni da ngaa mel ni man man jàngoo amoo xam-xam. ay boroom xam-xam di wax dara da ngay toog déglu leen déglu leen benn mm-hmm. su ma jaaxlee man man awuma xam-xam su ma jaaxlee damay dem seet borom xam-xam ma laaj ko mun ma lii ngay def nii ngay def mm-hmm. ma doyloo ko nag man ma doyloo ko mm-hmm. waaye boo bëggee laaj téeméer nit du sotti ah. du sotti. Mm. te beneen bi ci topp mooy. Mm. tey fii ne xam-xam. dafa am ay am na yoo xam ay wóote da caa am. wóote da caa am laaj ki mu wax la lii nga laaj ki mu wax lii nga laaj ki mu wax ki ba noppi. Mm. juróomi nit mën nañ laa tontu. te duñ bokk tontu. yow bu fekkee ne jàngoo xamoo meloo ni man. doo xam da ngay jàng doo xam loo war a def. te fekk na boo jàngoon. di nga xam ni masale yi ñoo deme noonu. ñoo demee noonu am. boo fa jógee da xam ni nga war a def. dana benn la sax waaye nañ koy. nañ koy leerale moom mooy def waaw tey mu ngi bambara toog soosa toog njaaga toog ab tubaab toog keneen wolof toog séréer toog léegi ñoom ñeen ñoom ñëpp kenn déggantewul léegi yow mi toog kenn ngi toog koo xam dégg na làkk yëpp ni muy wax ak séréer bi soose soose bi du ko xam. déedéet na wax ak soose bambara bi du ko xam. te fii ne mën naa na mu wax ak séeréer bi. noonu la wax ak bambara bi waaye ñàkk dégg làkk wa mooy tax mooy tax du xam day jàpp ni kii leneen lay wax. bu fekkee la la la wax la wax kii. macha allah léegi nag noonu noonu la demee. loolu fekkee dégg ñu ne yow doo ko xam. fekk na benn la. benn la mi yow tax moo tax xam-xam. waaw du la foraat. moo tax wax ji wax ji yëpp rek mooy jàng rek. waaw xam nga da ngay dégg sax ñu ne ah yëf yi newul ci téere wala bool sa nit ki wax ni fi nga toll yow ci xam nga nga mel ne daal ku ko comme ni mu wax rek koo xam da nga koy da koy mere ak yooyu te fekk li ko waral mooy seeni niveau mm. ñoom ñoo bokk léeg sa nga gis borom xam waxee noo xamante ni yow fi nga toll ci ak mm. suufee ni ci wàllu ñàkk xam mm. da nga defeen dafay diingat wala boog sax dafay am ñu muy tuumaal te fekk yooyu yëpp ci yow la rek moo tax bayit yi xàbb yi riis na lool fan jaaxi dañ ci ñëwaat sax dañ ci a yaatu fii ne fii ne fii Euh, euh, mooy li ñenn it dañuy xaw a mel ni man léegi yow fekkee nit buy wax dara ci xam-xam yow nga ni xam naa te li muy wax xañ na xamoo ko nga jàpp ni du noonu. du noonu waaw ndax ñàkk xam nga ñàkk xam nga kon yow da ngay jàpp ni ci yaa ngi àtte woo sa bopp juum loolu kenn mbir xam-xam doo ko àtte woo dafa yaatu loolu dafa yaatu dafa yaatu fi ne mën ngaa ñëw wax dara kenn mm. ñëw am ci beneen déggi déggin bu gën a xayoo kii waaw dafa dafa yaatu noonu noonu kenn ku ne ni mu jànge sax da ciy feeñ feeñ waaw loolu la jërëjëf sëñ Xaadim kon bokk ji li bokk taalibe loolu moo nekkoon majalis ñu toll ci euh, ay abiyaat yu am solo yoo xamante ne Seydina Ali euh, karamala wajhahu moom moo ko def mu nekkoon juróomi bayit ci ñeenteel bi nag ci lañ toll buñ ñëwee rek euh, xàbb yoo xamante ni mooy xàbbu ñeenteel bi ni ko sëñ xaadim waxee danañ ci dellusiwaat mu gën a yaatu ñu mottali ko nag incha allah daal di wéyal eh, téere bi kon sëñ xaadim dañ lay jox rek nga eh, tàggatoo àllarba bii di ñëw di la sant bu baax la ñaan incha allah jërëjëf sëñ jër ñu ngi lay sant bu baax mm-hmm. di rek taxawaay bi eh, di nuyu baax waa caaro yi mm-hmm. dale ko ci sëriñ Fallou Dieng te nekk Touba léegi mm-hmm. muy day Safinatoul Aman taxawa bisu xas da foofu nekk ay jàmbaroon sëñ Baara Samb ñu ngi nuyu baax sëñ Abdou Samb waaye sëñ Njaxat Gay mhm. moom it eh, nekk Touba léegi eh, sëñ Xaadim Diop ñoom mhm. sëñ Modou baare Diop mhm. sëñ Chony eh, moom sëñ Chony ñoom ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu bu baax waa Thiaroye di leen saar di ñaan bu baax sunu xarit ba suñ ko la suñu Ibrahima Cissé yàlla yokk ay leeram mbooleen mboolem ñu faatu ñëpp nekk ba saxtan fekk leen fa wala mu fekk leen wala ñu fekk ka fa nuyu baax nag Serigne Moustapha Mbacké Gorom Eh, di nuyu sëñ moodu Mouhamadou Mbacke nekk Sangalkam hmm. waaye sëñ Mbacke Madina ñu ngi koy nuyu baax nekk foofu ci Woye Mbaam di suñu kolere hmm. eh, di nuyu baax sañ sëñ Bachirou Mbacke moom it nekk foofu Woye Mbaam sëñ hmm. saaliwu eh, seen mag nekk fële di ko siyaar di nuyu baax moor Mortada Mbacke nekk Noflaay waaye sëñ Mam Mor Bousso nekk kër sëñ Tuubaa gi ci Mbambilor sañ Modou Mbacke ibnu Serigne Moustapha Bachirou Mbacke nekk ak ñun fële Kayar di ko fiyaat baax baax du nuyu soxna soxna maam xarit Mbacke di suñu xarit waaye du nuyu baax magam nag suñu Abdourahmane Mbacke ni suñ Muntaxa waaye sëñ Mouhamadou Mbacke it nekk gollam ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di ñaan suñu dafa nu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Khadim Ndiaye Kayar di la sant baax la ñaanal yàgg fi di wax ne rek poroxaan gi moom mi ngi ñëw alxames bii di ñëw Euh, bu dellusee nga euh, xam ne ci la ñuy euh, fàttaliku nag soxna sa tedd soosu mooy soxna Mariama Jaaratullaahi Buso ngeen gis ne at bi fan yëpp mi ngi ciy waxtaan sëñ Xaadim sax nga defoon ci palaato bu am solo eh, ci jamono yi yeewee su kon ñu leen koy bàyyiloo xel bu baax eh, kon li leen xamal ni rek kon loolu mooy majaalis di sant nag ñëpp rek suñu sang yu tedd yi xarit yi wëllër yi soppe yi bàyyi wuñu kenn di leen jox dig daje nag incha allahu ba àllarba bii di ñëw ci waxtu wi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته